ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat laata jàmm seen seen bi di Leader TV di wax ni bu leen fàtte abonné ñu ñëw ak ci information sport yi tey noo kii doomu Sénégal bi nga xam ne moo di Sadio Mané moom Sadio Mané ma ngi continuer di def yu rafet gannaaw bi nga xamee ni Liverpool googee nga xam ni jóge na fa moom Sadio Mané mii nag envoyé na waa Liverpool yooyee ay colis may na leen ay colis supporters yooyee nga xam ne ñoo nekk Liverpool ak fans Liverpool yooyee colis ya nag la nekk ci biir chocolat moo sa nekk ak ay fromage ak bataaxal boo xam ne bind na ko ak ay photo Sadio Mané bataaxal nag mu ngi ci xamle waa Liverpool yooyee ñi leen gannaaw bi nga xamee ni nekkoon naa Liverpool googee jóge naa fa si jóge yu rafet yéen tamit ngeen nekk ak man nekkin bu rafet kon man Sadio Mané mii maa ngi leen di jaajëfal gannaaw bi nga xamee ni maa ngi bayaar na gi mais xool yi ak xalaat yi yëpp a ngi Liverpool googee moom Sadio Mané mi nag ma ngay continuer di def ay gestes yu rafet fu waay mënti nekk ci àddina bi moom l'international sénégalais bii di Sadio Mané ñuy bàyyi Sadio Mané jubaleeg Bernardo Silva doomu portugais bi nga xam ne équipe boobee di FC Barcelone def ko bëgg moom nag FC Barcelone ma ngay continuer waxtaan ba équipe boobee di Manchester City moom Bernardo Silva nag ma ngay gën a jege FC Barcelone googee gannaaw bi nga xamee ne war nañ ko xaar ci semaine bii ñu jëm mu ñëw FC Barcelone googee xool kër googee nga xam ne ut na ko fa pour ay femeem nga xam ne bu ñëwee FC Barcelone googee fa mën a dëkk di doxal si boobule équipe moom Bernardo Silva nag ma ngay gën a jege foofee di FC Barcelone.